déjà ñoom ñuy réclamer à ce que euh, ministre bi ñu dénk wàllum justice mu ñëw foofu def fa visite. waaw mais euh, man jàpp naa ne d'abord dañuy damay nuyu ñu nekk ci prison yëpp ci réewum Sénégal parce que euh, dañuy suivre régulièrement télévision yi rajo yi parce que moment yooyu la ñuy am ma leen di ziar di suñu borom mu teggi leen yenn wala nattu yi nga xamee ni tegu na ci seen kaw mais tey c'est le moment de hâter le pas. ci la mise en œuvre des conclusions des assises de la justice yi ñu amanoon fan yi ñu weesu en 2003 2023 euh, plutôt maître Ndiéguène bokk di secrétaire général bu euh, avocat yu euh, Sénégal dafa joxe benn chiffre ne ni sur quinze mille prisonniers au Sénégal six mille yi prévention détenus provisoires la ñu wala ci ci cadre détention préventive la ñu la ñu nekk maanaam kenn àtteegu leen sur les quinze mille en mille vingt trois ma jàpp ni six mille àtteeguñ la quinze mille yooyu am na si ñoo xamee ni ay délits yu entre guillemets délit mineur la ñuy def tey ñu ngi def jamono ji euh, vacances agricoles mois je maintiens benn xalaat boo xamee ne euh, maa ngi koy ziar ci sama wasila maam Cerno Birahim borom daaru da yàgg wax ne ni au lieu ngay jël nit ñi di leen dugal ci biir kaso bi pour benn yàmbaa bu ñu tux koo xamee ne mhm. Dakar la juddoo màggee fi yaroo fi xamul sax tool fu mu féete euh, am na mhm. espace bu bari boo xamee ne mu ngi fii mais dugal ko dina jàng métier wu béykat mën na am sax mu gis si gis si boppam ba. Euh, doon passion ci moom. Mm. ba dootul tal ay tux yàmba wala ay eh, yu ñàkk fayda yoo xamee ne moom moo tax ñu dugal ko ci kaso bi ba pare tey ci longue détention yooyu préventive nit a ngi fi taxaw na ni sax sarax leen ma suturaal leen ma maa luubal nangam ci koppar li Fadilou Keita di wax démb ma koy d'accord ay nit a ngi fi ñoo xëy ne dañoo def détournement de deniers publics présumé. ñu ne diw ak diw ak diw def nañ nangam ci wàllu prévarication foncière ak financière ñu leen wooye ay délinquants à col blanc ña nga seen kër toog wala ña nga dugg avion génn réew mi kii sàcc benn ginaar wala eh, rey di benn xaru jàmbur ñu bàyyi ko ci kaso bi fàtte ko fa man pour man justice mooy ña def lu jar dugal ci kaso ñu génne leen ñu dugal ci dugal leen ci kaso atte leen dugal leen ci kaso bu fekkee ñoo def yenn déli mineurs yi eh, waxoon nañ fi dañ fi mais wax nañ fi ba ci mbirum li ñu eh, jëndee wala li ñu dugal ci xaalisu ci xaalis ci eh, bracelet électronique ñu ne sax lu loolu sax am na luubal lañ ci wax nañ ko leeral bracelet électronique yooyu mais waru waruñu ko takkal Birahim Touré parce que siiw na ñaanuñu ko mais nañ ko nañ ko takkal koo xamee ni yow leneen lu lu délit mineur la def boo ko waree li ñaan ay pen peine alternative mën a am ci moom nga ne léegi yow dañ lay tëj juróom-benn fan mais boo génnee ci juróom-benn fan yooyu da ngay def des travaux d'intérêt public ne ni juróom-benn fan lañ lay tëj waaye boo ci paree pendant deux mois mais ca Europe dañ koy def ca États-Unis dañ koy def pendant deux mois lépp euh, tali kii bi yëpp Ouest Foire bi yëpp. da ngay ànd ak euh, ñi ñi war a bale tali bi ak mm. euh, oto bi yore wàllu nettoiement te chaque jour da ngay pointé ñu gis ni yaa ngi liggéey ci loolu mais gis nga boo ci pare wax dëgg fa neex yàlla foo seen yàmbaa da nga koy bàyyi doo ko doo ko jege parce que da nga naan dugal nañ ma ci benn juin bu ma tox jàpp nañ ma dugal ma ci kaso bi waaye lii mooy sama sama daan ci wàll woowu wala nga yóbbu ko ci tool yi tey espace bi ñu am yëpp. tout ces gens là yu ñu dugal ci prison mais lan moo tere ñu mën a fexe ba mais ñu am sax toolu prisonniers yi comme ni mu amee boulangerie de la réinsertion waa camp pénal maa ngi leen di nuyu dañu boo xam ne ay prisonniers ñoom ñoo ciy liggéey nga am ñeneen yoo xam ne boo demee Thiès Mbour ak feneen ñoom ñooy defar ay ay tableau ay œuvre d'art ay ballet ak yeneen ak yeneen mais ñooñu nañ leen gën a euh, privilégié maanaam jàppale leen ba nga xamee ni tey néew ma doo doo dugal ay nit ci kaso mais au moins dina am yenn kaso day doon ultime recours lay doon mais du doon li nga xam ne ipso facto day am te suñu appliquer les décisions yi jóge woon ci assises yi mu mën a am juge boo xamee ni euh, c'est pas procureur danaan diw na mandat de dépôt rek ipso facto ñu yóbbu ko ci kaso bi mais moom juge boo xam ne day jàpp ni non kii mandat de dépôt mën na bañ a tegu ci moom mën na am leneen loo xamante dina ko def yooyu yëpp c'est des choses yoo xamante nag sa permet au moins de réconcilier Sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa justice te pour ça nag il faut nécessairement que euh, li ñu ci waxtaanee woon yëpp ñu baral jéego yi je sais que on parle de possibilité de euh, def euh, référendum pour mën a dugal yenn yi nga xam nekkul woon ci constitution yeeg yooyu mais ñii di waa Diomaye nañ ko nañ ko baral rapidement. ñoom Ahmed. Ahmed ñu ñu jeexal ak yow d'ailleurs ci ci point bi muy détenu yi nga xam ñu ngi nekk foofu ca.